ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ñu jiital ci nuyoo bi président de la république muy euh, Bachir Diomaye Diakhar fay ñu boole ci waale premier ministre muy Ousmane Sonko yal na yàlla jàppale leen tàppe seeni xol yi ñu nuyu euh, euh, mbooleem xalifa yi yal na yàlla yokk seen wér surafa yi sërif yal na yàlla jàppale leen ñu ñaanal mooy alu baytu rasul yi ñaanal yàlla nuyu imaam yi ak sëriñu daara yi ah, ni ñu ko waxee léegi rek daara jooju ñuy wax ca kër Malamine ca Tiwaawan te juróomi xale faatu fa ci lakk yal na fa géej ah remercier tamit ministre ba fa teew ak ndig yama fa def yëpp yal na yàlla yeggali yëpp ñu ngi leen di jaale xale yooyu ci daara daara moom lu nekk mën naa jànkonteeg moom ñaanal sëriñu daara ñu gën a góorgóorlu waa aada ak cosaan tamit ñu ñaanal leen yàlla ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi ñaanal njiitu kër gi muy Pape Alé Niang ayadahullah wa nasr yal na ko yàlla jàppale te dimbali ko ñiinal ñaanal directeur yi muy Pape Malick Diop ak Ousmane si yal na yàlla jàppale leen dëppale nag seeni kilifa ñaanal yàlla alhaaji Moustapha Guèye mi yore woon émission bi yal na ko yàlla yërëm ak Ousmane Guèye ak alhaaji Ibrahima sis ak Adja Hadi Diouf yal na yàlla yërëm leen jéggal leen ñaanal yàlla ñi fi des muy ndey kumba puy yal na yàlla yokk wéram ak ayda puy képp yeen ak mareetu sis ca njuufe ca xinin ñaanal daayiratu wasilatu muna bu sëñ ahmad tijani ibnu sëñ mansour ñu nuyuwaale maire Pout muy Malick Ndiaye ak waa Pout yëpp ñu ngi leen di nuyu képp ku fa yeewoo ilimaan yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla maire Thiaré tamit kazalik ñu ngi leen di nuyu mbay Sène di ko ñaanal yàlla bu baax canalisation yi muy def foofu yëpp yàlla na yàlla yeggali lépp ñaanal yàlla waa kaaw Caaroy lieutenant Samb ak lieutenant Guèye ak euh, secretaire muy Diop ñu ngi leen di ñaanal waa infirmerie yëpp ni commandant Asselin ak commandant Si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ak lieutenant Camara ginnaaw loolu ñu nuyu njiitu borom kër gi ñu nekk nii muy docteur Thierno Ka ak Mor Jaxate ak Xaadim Mbay ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ah, ginnaaw loolu am nañu fay invité muy suñu góor gi euh, sëriñ Moodu Mamour Amar na yàlla yokk wéram ñaanal yàlla euh, mu yàgg fi lool te wér ak euh, ku ñuy wax Jibril juuf nga xamante ne bii ah moom tamit bokk na ci invité yi sëriñ Moodu Mamour Amar kii dafa wax ni Aboubacar Saddiq nee na ni mu duggee ci lislaam daal nee na la bëgg nga fàttali ñu ko daal incha allah bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man wala jërëjëf al imam Mouhamed Ciss ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di la ziyaare bu baax di leen ndokkeel itam di ñaan yal na yàlla boole defal nu jàmm. di nuyu itam sëñ Mouhamadou juuf mi tabarakallahu di ko ñaanal jàmm ak mucc ak xiwal. di nuyu ñëpp ni nga ko waxee nuyoo bi nga def dañ na te doy na te mat na tabarakallahu alhamdulilah kon ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax a baax. di ñëw nag ci laaj boobu nga laaj di. sayiduna aboubacrin siddiq nu mu duggee ci lislaam sayiduna aboubacrin day eh, ni mu duggee ci lislaam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku nekk biñ la gaaralee lislaam am nga ca xalaat teg sa gis bopp ak luy lislaam neena na ba mu des aboubacrin hmm? nee na aboubacrin moom دافا جيس الاسلام رك جيس مايت خم دال دي ماي گم نانگول ما خمني لوما واخ رك دگ لا موم مو دال دي گم الاسلام نك نا يتم دي كو خمني موي اول من امن ني جيك گم يونتي بي رسالام دي موم موي كي كي جيك loolu moom ulamaawu taarix li gën a bari ci ñoom loolu la ñu saxal donte ni am na ñu wax leneen mais bariwut waaye histoire moom xanunam lu am mooy wuute waaye li ëpp daal ci jullit ñi rawatina sahabatu rasul rawatina yonent bi te moom lu mu wax rek loolu moo am sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sina Abu Bakrin Siddiq Siddiq jooju yonent bi moo ko ko tuddee nee na bi amrin min allah nee ndigal lu yàlla jox ni ma kooku di abubakarin na nga ko tuddee siddiq abubakarin ji itam mooy tekki baayu ku teel a gëm rek mooy sa baay ci teel a gëm loolu moo di abu abubakarin siddiq ji di ku gëm la ba noppi dëggal ngëm ga ba noppi itam tuddoon na it atiq atiq mooy koo xam ni dañ koo goreel ci sawara moom du ca dem am na ñu wax ni atiq mooy ku bind bi ku kanam gi leera nañ loolu it am na ñu ko wax tabarakallahu waaye moom sidna aboubacar siddiq radiallahu anhu teel na xam yonent bi teel a ànd ak moom teel koo déggal ba bi yonent bi riñaanee dem ba ñëw même guddi gi la jóge Makka même guddi gi la dellu siwaat dal di dem fa Kaaba ga fekk fa ñoom Abu Jahlin ak kibaaru Quraysh yëpp ni leen man de dama tukki woon biig ñu ni ko foo deman mu ni dama wuy ji woon sama borom ci kaw jaar naa nag baytil muqaddas ba julli fa jiite fa sama nawlay yonent yi door a dem giseeg sama borom mu jox ma la may jox ma dellu waat ñu ni ko kañ eh, mu ni daal tey laa fi jóge woon Abu Jahlin def ni keroog yonent bi de lu ma wax nu jéem koo weddi am ñu ko dëggal am koo xëy nag bu ko dëggëlee moom ñu bari fekk ko ca waaye bii yoon moom du dëggal lii ndax xam na baytil muxaddas xam na différence bi xam na itam ñaata waxtu lañ ko war a dox kon moom du mën a gëm lii dal di ni moy abou bakrin dal fay yebal ben nit ni ko demal wax Muhammad bakrin ne ko Muhammad de neena da tukki won bi dem na baytil muqaddas julli na fa door a continuer dem gisi boromam moo ko woowoon Aboubacar da leen ni ndax moko wax ñu ni waaw mu ni in xaala xaala fa naam moom bu ne bu fekkee moo wax rek am rek moo ci war a topp muy dëgg la tabaarakallaahu jërëjëf noonu la nekkee ba ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bis boo xam ni yonent bi dani kenn ku nekk la mu am ne ko ëndi Seydina Omar dem xaaj alalam bàyyi fa genn wàll ga indi genn wàll gi fekk Abu Omar la ni Aboubacar lu ma saa jëkkanti ci lu baax jiitu ma ci waaye tey moom du ma ci jiitu dal di jël alalam xaj ko ci digg ba ni li pour sama wa kër li ci dess nak di xaj bi dama ko yut yonent bi waye ma fay jitu nak abou bakkar dal di gaaw dem joxe ko yonent bi ni ko lo lo lo lo lo lo lo bàyyi sa kër mu ni ko nisfu mali andil la nisfu mali bayina ci sama kër genn walu sama alal indil la genn walu gi sallallahu alayhi wa sallam yonent ni ko la nga bàyyi sa kër mu wuutu la fa yàlla na la fa nekk tabaarakallaahu ñu toog tuuti Aboubacar indi la mu amoon këram lépp mu yónni ko benn yoon indil yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko ana loo bàyyi sa kër mu ni ko Allahu wa rasuluhu mu ni ko loo indi fii mu ni ko loo ma aman rek indi naa ko lillahi wa rasulihi yonent ni allahu wa rasuluhu yàlla nañu la nekk sa kër omar ni lu ne jëkkante naa ceeg aboubacar ngir jiitu ko ci defoon ne tey maa ci jiitu waaye tey jiitu na yonent bi ni ko te dootoo ko jot te keneen it dootu ko jot sallallahu alayhi wa sallam noonu daal <laughs> la nekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ee, boroom xam-xam yi nag dañoo mujj indi benn wax ngir bañ werante ci lislaam ndax lislaam mësta bëgg werante mhm. dañoo mujj ni bu dee mag ñi abu Aboubacar jëkk gëm mhm. bu dee jigéen ñi Xadijatu ci jëkk gëm bu dee ñi nga xay dëkkuñu woon Makka doonan ñu ñu daan moom euh, euh, euh, Abdullahi bu dee xale yi Ali waaw bu dee ci xale yi Ali ibnu Abi Talib mhm. noonu lañu ñu mujj tëralee. ngir bañ juyoo ak werante ci lislaam jërëjëf xam naa waxtu daal noonu la Aboubacar daal waxtu wi moo ñu ko mayul mais comme ni nga ko waxee rek bu dee mag ñi Aboubacar bu dee euh, jigéen ñi Khadija bu dee xale yi Alioune Ibn Abi Talib jërëjëf sëñ Modou Mamoun Amar comme ni ñu ko waxee rek gërëm waa Mbour jiital ci Cheikh Omar Sarr ak Mamadou ak euh, Mamadou Sarr ak Teyib.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 والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة إمام محمد سيس سنو سرين نولي نيو دي لزيار دي لنيانا ليالا يالا يوك لور أمين يا رب الله إمام أمار نولي نيو يويت دي لزيار دي نيانا دي لنيانا ليالا لور يوك فن أمين يا رب ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan fii ci RTS di nuyu waa Pout Sañafil Fam Jar Fam Mbaas Bedew Ginnaaw Raay ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Xay di nuyu waa Xinin itam fadilatu imam bu neexee yàlla ak diw wala boog bu neexee yàlla ak yonent ba ci misaal mm-hmm. xam nga jullit dafa war a tegginoo tegginu sariya maana war na xam li muy wax lan la ak li muy def looloo tax boroom laxdari yu di wax ne wala yaxillu lil mukallafi an yafaala filan xata ya xata yaalama xukmallaahi fiihi mu ne benn muskalaf warul def dara wala mu wax dara te xamul lan moo ci àtte yàlla bu soobee yàlla ak yonentam ci misaal mm-hmm. xam nga boo ko waxee ci ñi jàng naxwu ak boobu mooy wa mm-hmm. waaw boobu dafay boole moom la ñuy wax waawu maaya wala taswiya dafay yemale ci ñi jàng naxwu mm-hmm. te yàlla sunu boroom yemul ak dara te liibur na ci def lépp moo tax boo waxee bu soobee yàlla ak yonentem danga yemale yàlla ak kooka wala ak loola wala nga wax bu bu dul woon yàlla ak diw ba léegi itam loolu kenn du ko wax ci xadisu xuzayfat bnul yamani radiallahu anhu mu ne yonente ba sallallahu alayhi wa sallam wax na bés ne لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم ساء فلان حذيفة بن اليماني نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بولين دي واخ بو صوبي يالا اك ديو وانت ديلين واخ بو صوبي يالا توبو ديو توبو ديو moo tax bu soobee yàlla ak baatu ak boobu dañ koo dugal ci bokkaale ndax ñu ngi ko jële ci yonenta ba sallallahu alayhi wa sallam bi ko benn waay ñëwale dal di ne ko macha allah wa sita ya rasulallah bu soobee yàlla ak yow mi yàlla yónni yonente bi xaarul mu wax la muy bëgg a wax daf ko tontu ci automatiquement ne ko ajaaltanii lillahi niddan moo ndax danga may dendale ak yàlla del wax macha allah waxdahu bu soobee yàlla donc wallahu taala alam fadilatu imam jërëjëf kon mbokk yi ñu xam ne bu neexee yàlla ak yonente bi yonente bi daf ko tere kon jullit buy wax na wax bu neexee yàlla rek boo ci tegee yonente bi rek ni wax ci grammaire danga boole yonente bi ak yàlla ci naxu bi mu wax kon ñu mooy te ñu bari dañ koy jëf bu neexee yàlla ak sëriñ diw bu neexee yàlla ak diw bu neexee yooyu yëpp chariatul islam yi nanguwu ko kon oustaz Jibril Diouf jërëjëf yal na yàlla fay la bu mel ne ñi koy waxee rek ñi ñuy seetaan Aboubacar Jara ci ak Fatoumata Bokum ak Mohamed Jara ca New York ak Mama Sis ñoom ñëpp ñu ngi seetaan émission bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla sering Modou Mamoul Amar ki dafa wax ne nu ñuy waxe nit ki yéfer la te fekk muy julit léeg nga dégg ñu ne nga tok ah koku de yéfer la te fekk julit la Mouhamed la tudde wala julit la dal, bismillah tabarakallahu al imam Muhammad sis ngi lay bu baax baax baax di ziaré bu baax nak Serigne Samba Gueye ak Serigne sadadjeng ak Serigne Mor

munaafiq nee na munaafiq nag dana julli mooy naafiq dana woor dana dem màkka bu amee alal ju ci yóbbu dana génne asaka ndeem am na alal ju mat nisaab yooyu amal yëpp day amalul muslimin jëf yëpp de waaye nag dafa am ñetti jikko yu ne ci moom yoo xam ni boo amee benn ci yooyu mhm. dugg nga ci naafiq ñett yépp nag bu dajee ci yow naafiq nga te naafiq yàlla nee na ndettu sawara fa sawara suufe fa mu yem mhm. foofu la naafiq di tëdd tabarakallahu kon kooku dayoom ci caay-caay rëy na yooyu moo di xam ni kii waxtu wu ngeen di waxtaan lu mu la wax rekk du doon dëgg kasaba rek ida lu mu la wax rek du dëgg ba ca topp moo di waxtu woo ko dénkee alal wala secret wala sa njaboot mu war ca mu war la ca def ca loo xam ni bokkut ak la nga foogan ci moom mu def ko ca ñetteel ba mooy waxtu wu ngeen joxantee randiw ci dara nan daje barab sàngam waxtu sàngam bi sàngam wala weer sàngam bu mu ci mën a wax rek du ñëw moom <laughs> na nga ñëw dinaa la jox nangam mhm. fekk bi la koy wax nëru ko waxtoo jot nga ñëw mu defam pexe ba doo ko gis yooyu yëpp nga xay daal xaana kasaba mhm. xala axlafa war wuute ak euh, ñàkk respecté randiw ci nu ngeen ko mën bu mu doon rek kooku yonent bi nee na bu fekkee ni benn rek nga xam ci moom te xamoo ñetti yépp daganul nga ni ko doo jullit mais boo xamee ñett yi yëpp mu boole ko ci lu wér. Hmm. kooku sañ nga kon ni doo jullit yow. jërëjëf ndax yonent bi moo ko wax ndax comme ni foofa lay dëkk foofa jullit du fa dëkk. darakul asfal mina naar hmm. foofa jullit du fa dëkk. tabarakallahu kon daal loolu yooyu daal yonent bi moo ko wax ni yàlla moo ko ko wax ni ko ki noonu moom. darakul asfal mina naar rek foofu lay dëkk mooy suufu sawara fa mu gën a suufee hmm. nga xam ne mooy gën a tàng ndax tàngaay wi ci kaw foofu la jógee ba egg ci kaw kooku nee nag foofu lay dëkk kon kooku nag du jullit asman innal munafiqina fi darakal eh, asfal mina naar muhammad li nga wax daal naafeq daal mooy xooñi cin kon yal nañ ci yàlla musal xam naa ne tamit war xëy huit heures toog ba dix heures nga door a ñëw mm-hmm. wala joxanteeg nit rendez-vous nañu daje place sàngam nga toog ba heure bu mu neexee ngay door a ñëw yooyu yëpp dafa bokk ci di koy munaafiq kon yal nañ ci yàlla musal xam naa ne ñu jaare fi rek Africa Horizon ci mool huit xadi ke ci nekk foofu ak waas euh, société bu yëpp Abdou Aziz mi ko jiite Ngom ak Anta Ngom ñoom ñëpp ñu ngi bégge émission bi di la seetaan ci mool huit ci port yal na yàlla fay leen Oustaz Jibril dafa am lu sol am solo te ci la ñu nekk ndax président de la république dafa waxoon ñu jëmbat garab xam naa li ci gën am solo dinaa koy dénk waa Pout nga xam ne mango rek lañ leen xamee xam naa ne nañu góorgóorlu ci njëmbatu mango comme gis naa sëñ Muntaxa jëmbat ko ñu ñëpp war nañu wut mango jëmbat ko ci sa kër kii day laaj ngëneel li nekk ci jëmbat garab waaw fadilatu imam euh, nga baal ma dama fàtte caaro yi bu waa caaro yi gi ma jóge ñoom it maa ngi leen di nuyu La Rochette ak am Amdalaay 3 maa ngi leen di nuyu bu baax fadilatu imam président de la république moom ak gouvernement am na yàlla jàppale leen amiin xoolal lu tollook mille quatre cent nangam ci ay at boobu fekk na yonente bi wax reboisement jëmbat garab mhm. moom sallallahu alayhi wa sallam xam nga jëmbat garab njariñ li ci nekk kenn mënu koo takk ndax boo xesee jëmbët garab gi toppatoo ko ba mu màgg lépp lu jëfandikoo ci garab gi moo xam ci keppaaru garab gi la moo xam ci xob yi la moo xam ci meññetti mi la picc mën na cee jëfandikoo doomu aadama nit mën na cee jëfandikoo bàyyi may rabu àll yitam mën nañ cee jëfandikoo waaye ñetti yooyu ma lim yépp yonente bi nee na ku ci kenn ku ci jëfandikoo yow mi jëmbat garab bi sarax la bu la yà fa yàlla yàlla dala koy konteel sarax dencal la ko ci sa téere jëf moo moo tax imaam képp ku gor garab te amuloo dara taxul nga gor ko amuloo ci benn soxla bu rëy la hmm? fàq ci benn car sax te doyewoo ko dara bàkkaar la benn xob sax boo ko ci daggee te doyewoo ko dara bàkkaar la fadilatu imam hmm. kon garab nit daf ko war a jëmbat wala mu ji ko toppatoo ko ba mu màgg hmm. muy dund ak mu jóge fi yàlla sulu boroom da koy fay كيب كوتي جفندكو موم لا يونن تبا صلى الله عليه وسلم دي واخ ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه يونن تبنين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيب كو جمبت غرب ولا نجيكو بومو ماغ توبتوكو بومو ماغ nee na nit ñëw jëfandikoo ci garab gi wala picc ñëw jëfandikoo ci garab gi wala ma ñëw jëfandikoo ci garab gi jëfandikoo ci garab gi nag mën na nekk toog ci kër gi noppalu mhm. mën na nekk lekk ci meññit mi mën na nekk sax ki feebar ñëw xas ci xasu xas bi faju wala mu dagg xob faju lii yëpp jëfandikoo ci yonent bi nee na sarax la bu la yàlla sunu borom di fay ëllëg fadilatu imam wallahu taala aalam kon mbokk yi li président doon wax kat surtout mango xob yi day faj reen yi day faj xas mi day faj doom yi nag dara dàqatu ko surtout mango bi ñuy wax bu ko jeexal xam naa ne ñi ma war a summi moom bu baree ci réew moom bari na ñoo xam ne xiif dootul am kon kenn ku nekk na nga am mango sa kër wala sa buntu kër wala ci tool yi yëpp ñu jëmbataat ko yal na yàlla jàppale leen jàppale ñun ñëpp kon euh, sëriñ Modou Mamoul Amar xam naa ne ñii waa seeni la ñu ca Saloum euh, dañuy seetaan émission xam naa RTS yaatu na lool ku ñuy wax euh, Boun Amar Diakham ak Modou Gueye ak Teyib Diakham ak Bachir jàll ñoom ñëpp ñu ngi ca kër Sénigay ca frontière u Gambie ak Sénégal yal na yàlla fay leen kon moo sëñ Modou Mamoul nga tënkal ñu rek dafa wax ne dafa am ñoo xam ne yonent bi dafa ne bindaluñu duñ leen bindal bàkkaar mooy wane waxtu li ci des bariwul. Euh, jërëjëf euh, al imam Mouhamed Ciss. Mm-hmm. ñu ngi ndokkeel bu baax a baax seen cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke ak cheikh Ahmadul Muxtaar ci màggalu Daaru Xuddoos gi nga xam ni moo jàll barki démb di bi sëñ Touba bi ñu ko indee Touba ak fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci weeru tamxarit wi nu génn mooy téeméeréeli at yi sëñ Touba tëdd Touba ñu doon ko màggal ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax di ziare bu baax nag sëñ Fallou Mbacke Abdoul Wudour ak sëñ Abdou euh, Rahim Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare ak Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziare di leen ndokkeel bu baax. ñu tënk kii bi euh, al imaam Mouhamad Siis waaw yonent bi dafa wax ni am na. ñett ñoo xam ni yàlla du leen bindal bàkkaar waaye ñàkk bindal bàkkaar googu nag dafa am fu mu yem foo xëy bu fa yeggee rek dañ koy tàmbalee bindal bàkkaar dañ leen di tàmbalee bindal bàkkaar ni koy bindal ñëpp bu njëkk ba mooy asabi yu xale xale xatta yaxlam mm-hmm. feek géntul maanaam mësul góor mësulul mësulul daal waaw mësulul ديسكو بيندال بكار اك الناعم كي نلو نيت كو تد دي نلو حتى يستيغز فيك يوت كوكو يتم دونكو بيندال بكار والمجنون حتى يقيف اك كو خامني كي دافا خيل دافا ويري دي دال ولا مخم ولا يمل نونو feek jógewul ci lolé ko jàpp ba mel noné deesu ko bindal bakkar motax yonent bi ni rufi al qalam an salaasin yëkkatil naa xalima gii bind bakkar yëkkatil naa ko ñet ñom duma len ko bindal mooy asabiyu naimu al majnun ñooñu daal la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ku ci ne nag foofu mu ne hatta ah. ba keroog muy def nangam uh-huh. waxtu wu defee loola rek nag eh, bu eggee foofa tàmbali dañ koo bindal bakkaar al imam yeneen yàlla ci xam naa Oustaz Djibril Diouf benn laaj moom dañu koy àbb xam naa ne gëmbat garab bi moom am na solo lool dañ ci ñëwaat ginnaaw yàlla ñaanal yàlla ñi tax ba ngeen mën ñoo seetaan yal na yàlla faj seeni i soxla muy soxna Daba Kebe ak soxna Njar Gay ak eh, Serigne Moustapha Ndiaye ak Daouda Ndiaye ak Lamine Ba ak Ana Diouf ak Cheikh Omar gay ak Zeynabou gay ak Mor Cissé ak eh, musa jeng yal na leen yàlla jàppale suñu techniciens yu baax yi nga xamante ne bii su ñëwee yaru nañu baax nañu ah yal na leen yàlla jàppale xam naa ñi ñu boole daal ñoom ñii ñu baax lañu saa yu ñëwee ubbil nañu seen kanam ah ba ñu suñu émission yi jeex yal na yàlla jàppale leen ñu nuyu nuyuwaale tamit ni ñu koy defee euh, général Moussa Fall ak xaar général Xaar Diouf ak colonel Ousmane Ali Kane ak colonel Ousmane Kane ca euh, douane ca Ndar ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp Mamadou Diankh Ciss ñu ngi koy nuyu ak Ablaye Diallo ak Gora Yali Thiam Bissau ak Fallou Warg ñu ngi leen di nuyu di nuyu Serigne Ndiaye ak Ibrahima fay ca Gorom di nuyu waale góor gi Yande ak maam Yaboy ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ca Gorom ak imam Mamadou Gueye ñu nuyu ñaanal ko rahmatullah alayhi Mamadou Siis ñu ko daan wax Modou Puy ñun ñoo daa jàngandoo ñoo màggandoo yal na yàlla yërëm ko ca lelo nuyu waale Mamadou ñoom ñëpp nuyu waale Bayof waa Gab waa Palal waa Njuufeen yëpp ñu ngi leen di nuyu ak Njaxat yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla RTS yal na fi yàlla def jàmm suñu kër gi yal na ko yàlla yeggali ñaan yàlla yal nañu yàlla defal jàmm tàppe xol yi ci RTS ba lépp lu ñu song ñu daaneel ko nuyu waale suñu directeur général Pape Alé Niang ayadahu llahu wa nasr yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla dimbali dëppale ko ñi nga xamante ni moo leen jiit RTS يالله في خط في خيول ببارك صوت كشي ريومي يالنا يالله دف جام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم